dañuy dem ci ay élection sama wax moom duma ci perdre temps mooy ndey mbili gi parce que looloo fi taxaw yéen ñëpp gis ngeen machine bi taalaguñu ko sax taalaguñu ko mu mel nii bés bu tàkkee damay wax waa opposition bi ku ci bëgg a nekk conseiller ñëwal ci ñu dugal la suñu liste nga bàyyi opposition Sud Golf Sud man taxul may wax ndax man bu ma taxawee monsieur le maire taxaw doyen taxaw Malick Sène taxaw ABC taxaw ah, ah, PDS Zap Ndiaye bu PDS taxaw a ah. ñeneen ak ñeneen kenn ku mën a jàkkaarloo ñun fii mënul nekk jàkkaarloog ñun tamit dinañu la dóor ba yegg sa kaw. loolu loolu bi la fanaan man sama wax man sama wax li ma ñor dëgg man xaw ma kan xaw ma kan may leen ma ma wax xaw ma kan monsieur le maire xaw ma kan mais man golf du sama problème da may leen ma ma expliquer. man golf du sama problème man li may liggéey Guédiawaye mooy ñu jaloor xam naa ni golf incha allah dañ koy gañ loolu amul si leneen li mooy képp koo xam ne man sama mbég sa mbég la sa ndam sa sama ndam sa ndam la na nga fexe sal Sall ñu joxaat ko mairie Guédiawaye su ma ànd moom su ma ànd moom may lan ma tudd suma ma moom mu demee neneen yàlla na ci yàlla musal te sax xam naa ni pourcentage de chance boobu bëriwul sama sama defet lay doon waaye bu ko gañee sama ndam la donc képp koo xam ne sama ndam sa ndam la loolu na ko def si yitte taxaw si golf moom monsieur le maire golf golf moom biti la fanaan bi laay du jàkkaarloo ñun golf golf képp koo xamante ni bëggoo sa jël ñaaw bul jàkkaarloog Lat Diop bul jàkkaarloog benn boo ko yaakaar fii ci golf képp koo xam ne bëggoo sa génnin ak sa retraite ñaaw bul jàkkaarloog Lat Diop bul jàkkaarloog golf loolu laa amoon lu may wax di leen wax ni tey tey la ñaata. le 23. 23. samedi 23 octobre. 23 octobre. waaw. ma leen di xamal ni bi tàkk na. Ah!